chers euh, internautes du Enquête 221 dal leen jàmm dalal leen jàmm ci li gën a fës ci ëttu yëglekaay bi ñu commencé ko ak le quotidien yéenekaay mi yu bay yi nga xamante ni di ci biir opposition bi yéenekaay bi ne dina bëri ay duel yoo xamante ni dina am ci élection locale yi du jëm rawatina ci coalition bi nga xamante ne di Maître Abdoulaye Wade moom moo ko jiite ak bi ñoom Ousmane Sonko nekk di Yewwi Askan bi yéenekaay bi di xam ne dina bëri na ci ay mairie yoo xamante ne nii ay kàngam euh, yu bëri dinañ fa euh, defante ndaxte euh, seen ndaxte leader yi nga xamante ni ñoo fa nekk ñu ci ëpp ñu ngi ànd ak maître Abdoulaye Wade am ca wet ga ñoo xamante ne nii laalaguñ ci euh, mairie yi waaye nag euh, ay leader lañu yu mag yoo xamante di jóge ci Yewwi Askan Wi li di firnde ne ci biir opposition bi ci boppam mbëkkante dina am ci élection yi euh, te sax nag waa Benno Bokk Yaakaar yeeg see gënu yéenekaay bi ne élection ju jëm dina bëri ay enjeux xamante ne nii am na ci ndaxte opposition bi déjà xar nañ ñaar ba bari na ci ay duel yoo xamante ne ni ñoo ngi koy séntu ci yenn mairie yi ci élection locale yi ju jëm ci dëkk du jëm moom tam dafa desaat ci coalition yi nga xamante ne ni bëri nañu lool ci biir opposition bi yéen kaay bi ñu xamal ne quatre coalition la ñu booy xool ba xool kenn ci ñoom bokkul xar kanam ak sa morom yéen kaay bi ñu xamal ne élection locale yi ñu jëm atum 2022 nañu jàpp ne euh, jeu de dupe lañ ci am euh, jeu boo xamante ne ni doo comprendre exactement sax kenn ku ci nekk lan mooy objectif am ci élection yi ñu jëm euh, yéenekaay bi dalal professeur Ibou Sané di enseignant chercheur en sociologie politique ci université Gaston Berger moom professeur Ibou Sané di xam ne ci biir yéenekaay bi da gis nga politique dara sérieux wu ci lépp ay jeu yooyu la yéenekaay bi ñu xabal di nag euh, bëri na ci ñoo xamante ne nii jamono ji ñu ngi ci opposition bi waaye dina metti ci ñoom lool ci euh, élection locale yi ndax ndaxte euh, benn Bokk Yaakaar mu ngi ci seen kaw naka noonu tamit booy xool booy xool kenn ku ci nekk da ngay bëgg a wane sa doole ba tax na xaajaloo bi ñu xaajaloo daal ka cee gën a bénéficié wu moo di waa Benno Bokk Yaakaar di koalition bi nekk ci nguur gi Walf Quotidien ñëw mel ne lu koy dëggal ne guerre des places moo am ci bi entre la ñaari coalition yu mag yi nga xamante ni jóge ci euh, opposition bi yéen kaay bi dañoo xamal ne positionnement yoo xamante ni nii amul unité kenn ku ci nekk ci ñoom da ngay jéem a wane sa bopp yéen bi ne bu fekkoon ne benn objectif la ñu am te moo di xeex ak nguur gi rawatina grande coalition bii di benn bokk yaakaar su boobaa dana doon yomb ndaxte dañuy booloo waaye comme que xaajaloo commencé naa am ci seen biir dèjà ñoom seen jëm bopp dañuy wujjante te nag bàyyeetuñu xel sax benn bokk yaakaar Moussa Diaw euh, ci biir yéenekaay bi di xam ne ne day moom moo ciy bénéficié wu ndaxte xaajaloo gi nga xam ci daam na ci opposition bi kenn dootul xalaatati benn bokk yaakaar mais da ngay jéem sa bopp pour rek mën a ba sa wujj bi nekk ci biir opposition bi xam ne daal am nga doole lool yéen kay bi ñu xamal ne ñaari coalition yii de di uh, bu PDS ak bu uh, Yewwi Askan bi ñu ci defante goo xamante ne lii kenn ku ci nekk yaa ngi jéem liggéey à la base. ngir wane sa bopp ci élection locale yi ñu jëm L'As Quotidien moom dafa dellusiwaat ci uh, coow li nga xamante ne nii moo ñeel uh, mouvement bii di Y'en a marre mbiru escroquerie ak visa ay faux passeport uh, diplomatique lañ leen di toppee yéen kay bi dellusiwaat ci kaawu Simon Kilifa ñoom ñaar ñi nga xamante ne nii defeere nañ dañ leen di defeere ni ki altine bi ñu jëm ci parquet bi les échos yi di ko dëggal ne Kilifa ak Simon de ñoom dañoo daanu waaye nag caat moom mujjee naa delluwaat ñibbi gannaaw ba nu ko dégloo ba noppi mbiru coowuk oto boo xamante ne nii dañ ne daf ko sàcc moom la ñu ko doon wooloo loolu nag wutee loolu ak li ñu doon doyee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yeneen i membre ah, Y'en a marre yi di ah, Kilifeu ak Simon yéen bi ñu xamal ne Kilifeu ak Simon ñoom ñi ki altine ji la ñu war a jàkkaarloo ak procureur bu dee nag Thierno jàll mi nga xamante ni moom moo doon filmer ah, kilifa ci biir oto bi te tuumaal leen mbiru faux passeport diplomatique moom nag day dell delluwaat ci cellule am ndaxte dèjà dafa amoon benn euh, charge boo xamante ne nii moo ko topp bu wuuteeg loolu coow bi ko dab ci digganteem ak ñoom kilifa bu Y'en a marre l'activisme moom dafa ci wàllu politique euh, taxawaat ci euh, coalition yu mag yi nga xamante ci ni jógee ci opposition bi yéen kaay bi dellusiwaat ci coalition bi nga xamante ne ni maître Abdoulaye Wade moom ci boppam moo ko jiite dellusiwaat ci force gi mu am ci élection yi ñu jëm ci atum 2022 waaye tamit ay faiblesse am lépp yéen kaay bi dellusiwaat na ci yéen kaay bi nag di ñu gën a xamal ak coalition bu yees bi nga xamante ne ni maître Abdoulaye Wade moom ci boppam moo ko jiite ànd ceeg nag ay parti yu mag yu nekk ci biir opposition bi mu nar a jàkkaarloo nag ak Yewwi Askan bi lan moo tax Maître Abdoulaye Wade mi ak PDS demu ñu dugg ci biir Yewwi Askan bi yéen kay bi deswaat na ci waaye tamit lan moo tax ba léegi si di force Maître Abdoulaye Wade ba léegi jeexagul rawatina ci doonu Bawol nga xamante ne nii tey bu soqatoon sax waa Bawol yëpp daal di jug ànd ak moom yenn kay bi di xamle nag dina bëri ci ay pàcc yoo xamante ni ci biir réew mi PDS dana ko mën a jëlaat ci élection collectivité locale yi ñu jëm te ci wet yooyu noonu ah, waa Yewwi Askan bi duñ fa mën dara yéen kaay bi tamit dell dellusiwaat na ci ah, Karim Wade bi nga xamante ni moom la ji ah, wutal place dana dellusiwaat ci réew mi waaw wala déet yéen kaay bi tontu na ci waaye tamit yéen kaay bi gën na yaatal sax ci lan moo tax opposition bi mënuñoo booloo nekk benn ci élection yi ñu jëm rawatina waa PDS ak waa Yewwi Askan bi lu tax dëgg dëgg dëgg mënuñoo booloo lépp yéen kaay bi dellusiwaat na ci division bi nga xamante ni opposition bi def na ko ñu bëri jàpp ne mën na may Benno Bokk Yaakaar ñu ëpp sens sax ci élection yi ñu jëm yéen kaay bi taxaw ci seetlu ne en tout cas 2000 euh, opposition bi tasaaroo woon na terewul ne ñoom waa opposition bi ñoom ñoo jël ndam ci kaw euh, nguur gi fi nekkoon waaye tamit 2012 booy xool ba xool euh, opposition bi dañoo tasaaroo woon teewul tamit opposition bi ñoom ñoo mujjee jël ndam ci élection yi ñu génn ci jiitalu président de la république Macky Sall lii di firndeel ne xaajaloo gi nga xamante ne nii opposition bi xaajaloo na ko amul benn impact bu. bu extraordinaire bu mu mën a def ci élection yi ñu jëm c'est-à-dire que mën nañu xaar ci opposition bi ñu am ci ndam lu yaatu critique yéen kaay moom dafa dellusiwaat ci trafic de visa yi nga xamante ne nii mu ngi lëmbee jamono ji réew mi confection de documents yi nga xamante ni c'est des faux documents ci biir ambassade yi yéen kaay bi def ci dellusiwaat ne business bu yaatu la boo xamante ne nii ña koy def nag ay bande lañu yoo xamante ne nii dañuy rusé wu lool maanaam dañuy yeewu lool lool lool foo yéen kaay bi dellusiwaat ci trafic de migration yi nga xamante ne nii dafay am ne euh, lii daal booy xool moom ak euh, liggéeyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ambassade yi di lijjantil ay documents ñenn ci. ñi nga xam te ne ñoo bëgg a tukki ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def wàllum migration irrégulière presque benn liggéey bi la rek ndaxte li leen wutale rek mooy ñii ay këyit la ñuy lijjanti ñeen nag du ñu lijjanti këyit xaalis dong la ñuy lijjanti ngir mën a yóbbu ndaw ñi ca bitim réew yéenekaay bi dem ci biir ambassade yi def ci ab enquête ak ñi nga xam te ne ñoom ñooy def trafic de visa seen liggéey bi ni mu fa méttee ne en tout cas dinañ la fexeel ba lijjantil la ay dossier yoo xamante ne nii euh, moom mooy ñeel sa demande bi nga war a def fournir la ay euh, faux euh, compte banque bancaire yoo xamante ne nii ñoom ñoo la koy créel seen jëm bopp wutal la ab réservation hôtel boo xamante ne nii boo yeggee fa nga jëm da nga fa mën a nekk waaye tamit dinañ la lijjantil sa papier yépp ba ni ngay yeggee fa nga xamante ne di moom moo di euh, ca bitim réew yéenekaay bi des wat ci ne ñuy nekk ci biir ambassade yi tey lijjantil client yi seeni euh, dossier ñoom seen jëm bopp am na alal gu takk goo xamante ne nii dañ koy xaar ci gannaaw ba ñu lijjantee ay papier yoo xamante ne nii daf lay jafe lool waaye lépp nag ci ay euh, trafic la nekk yéen kaay bi ne Ndakaaru Njaay moom la yëf yi gën a yaatoo ay millions yi millions lañ ci gars yi di gañee yéen kaay bi di xam xamle sax ne gis nga suñu musiciens yi ñoom la euh, affaire yi gën a laal ñu ci ëpp ci ñoom dañuy dugg ci yëf yi te nag buñ ci doon dugg gën ko yaatal dina bëri ñoo xamante ni dinañ si jàpp te dina ñu bari confection de faux compte bancaire yi nag moom mu ngi bëgg a réew mi ndaxte ñi koy def bari lool xanaa kay dañ ci ubbigut ab enquête waaye bu ñu ci ubbi woon ab enquête dina bëri ñu bëri ñoo xamante ne nii ci réew mi dinañ leen ci jàpp ndaxte ci la ñu dëkk l'info euh, xamante ne nii mu ngi ci biir opposition bi ak élection locale yi ñu jëm enjeu yi benn bokk mi nga xamante ne nii jamono ji moom tamit euh, dafa jàkkaarloo euh, ak ñetti fë maanaam safara yoo xamante ne nii mënu koo fay moom benn bokk yaakaar yéenekaay bi desuwaat ci force benn bokk yaakaar nga xamante ne nii ni ba léegi si tasul ba ñu ko taxawalee ba léegi amul benn jaxasoo goo xamante ni jaxasoo na ko ci jamono boobu position bi moom tas tasar yeewi askan bi ak nouvelle coalition bi nga xamante ni Maître Abdoulaye Wade taxawal na ko ba ci gëm sa bopp mi moom tamit am na beneen taxawaay boo xamante ne ni wute lool ak bu euh, Maître Abdoulaye Wade ak bu bi li yëpp di firndeel ne boo moytuwul élection yi dana bari xët-xët goo kenn ku ci nekk bëgg a wane dooleem ci yeewi askan bi moom yéen kaay mu ngi ñuy dina am ay difficulté yu bari yoo xamante ne ni Macky Sall dina ko am ak alliés yi nekk ci benn bokk yaakaar ndax kàngam yi nekk ci yewu askan bi kenn ku ci nekk rek doole nga surtout nag ci ndakaaru njaay lii di firndeel de euh, mairie bu ndakaar bi euh, ñi koy gën a xëccoo bokk na ci waa benn bokk yaakaar ak yewu askan bi ci jamono boobu PDS ñoom euh, ci yenn yoon yenn ci ay zone yoo xam ne ñu ci biir réew mi ñoom ñoo fa gën a taxaw nar fa jàkkaarloo ak waa benn bokk yaakaar lii di firndeel ne élection yi daal en tout cas dina bëri ay duel lool yéen bi sax dellu soit ci statistique bu benn bokk yaakaar taxawaayam ci réew mi déclaration. association yi nga xamante ni jamono ji wuute na lool ci seen i biir yéenekaay bi ne fi mu toll nii nag ñoom dañoo jaxasoo ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ndaxte dëkk boo ci dem ah, candidat yi ñu ngi mel ne ah, tullek male bari lool te ñoom ñëpp ñoo bokk benn coalition lii nag di firndeel ne juboo amul ci seen biir te bu ñu moytuwul nag ci ah, xaajaloo googu nekk ci seen biir fa lay opposition bi di jaar ngir mën leen door dóor yi métti ci élection locale yi ñu jëm yéenekaay bi sax del soit ci taxawaayu Benno Bokk Yaakaar di xamle ne fi mu toll nii taluñu dara booy xool gouvernement li nga xamante ni moo nekk ci opposition bi xaajaloo gi ci am ndaxte ñoom fi mu toll ni lu leen tal lu ñu tal dëgg mooy pandémie bi nga xamante ne nii jeexagul cherté euh, de la vie ak bi nga xamante ni jeexagul tam ci réew mi lii moo leen gën a impacté moo tax booy xool ba xool tontu wuñu benn yoon wala sax di dugg ci ay débat ñeel euh, xaajaloo gi nga xamante ni opposition bi xaajaloo na ko l'observateur moom dafa dellusiwaat coow caata ak waa mouvement Y yi nga xamante nii depuis euh, semaine bi yëpp euh, seen dossier yi mu ngi ci yoon yéeni bi des waat ci euh, division des investigations criminelles kaaw caat ñu lijjanti ko ne auditionné nañ ko auditionné nañ ko ba noppi daat koy bàyyiwaat la ñu ko toppee woon nag mbiru sàcc ko oto la waaye nag euh, mujjee nañ ko bàyyi mu delluwaat yéen bi xam xamle ne euh, lien yi nga xamante ne nii Thierno Diallo am na ko ak kilifa dara rafetu ci moo tax it euh, moom Thierno Diallo mujjee nañ ko delluwaat ci kaso bi ñoo doonte moom kilifa ak Simon ñoom ñaari tamit ñu ngi leen di toppee mbiru faux passeport diplomatique Simon mi nga xamante ne nii moom passeport am bii passeport français bi da koy daan di loué moom daal dafa dëkk ci di ko loué ndax ñaari nationalité la am xaalis bi nga xamante ne nii da koy encaissé lépp. lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci yéenekaay bi di xam ne ne Y'en a marre de fi mu toll dugg na ci coow loo xamante ne nii xamul fan la koy euh, dugg na ci coow loo xamante nii xamul fan la koy yóbbu yéenekaay bi dellusiwaat tamit ci wàllu politique tey xam ne ne euh, force bi nga xamante ne nii coalition Yewwi Askan bi am na ko na ñëpp xam ne ne bi ne force la maître Abdoulaye Wade am ak coalition bu yees bi mu taxawal ndaxte ay kàngam doo nga nekk ca biir coalition ba yéenekaay bi di laajte ne opposition bu ñu juboowul mbaa dinañu mën a jàkkaarloo ak nguur gi da ngeen di continuer di abonné ka bàyyi xel enquête 221 li gën a yaatu ci actualité buzz du jour lépp dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti incha allah bon week-end chers internautes